Euh, ku yebu rek euh, ñëw ci koor ak euh, li nga xam ne mooy masal yi ci aju ndax ni mu ko waxee woon jaamu yàlla la joo xam ne mu ngi ci suñ kanam te jullit bi moom dana baax lool xam àtte yi nga xam ne moo aju ci jaamu yàlla joo xam da caa a dugg kon ñu leen ci soññ bu baax a baax a baax di leen di ko sàkku ci yéen laaj daal su ma nee yem ci koor incha allah ndax ñu mën cee jàngee lu bare bari ndax émission bi daanaka daara la joo xam ne ku koy topp mën nga cee xamee lu bare bare bari euh, ay dara di woote Passy moom itamit laajam boobu bi daanaka euh, su demoon ci marché bi rek dana ko xam gannaaw xam na ñaata garaam la kawar gi di tollool ci ni ko xayma su xamee garaam bu nekk lu muy jar rek ci marché bi su boobaa dana ko xam kon Cheikh naa dañ lay jox kàddu gi nga tijjin jotaay bi kom niñ ko baaxoo defee sonn pee ñu jublu ci liggéey bi bismillahi irrahmani na in alhamdulilahi nahmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lah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 Euh, nuyuwaale ki nga xam ne moom nga dundal ci xarala gi di ñaan borom bi tabaraka wa taala defal leen yéen ñëpp tawfiq te defal ñu ko kon bismillah alhamdulillah Demba Diallo di woote Baara fële ca Gàmbi nee na jàngalekat bi yor ay ndongam léeg-léeg mu am ay bagages yu mu jël ci ñoom di ko jëfandikoo ci ay mbiru boppam joxe na ci misaal lu mel ni seen paan paanu ndongo yi léeg-léeg mu jël ci fóot ak yu ko nuru ñu laajte ndax loola euh, noonu la wala déet alhamdulilah yëf yi nga xam ne moomoo ko day euh, rawatina ay gone moom ko soo ci jëfandikoo dara war nga bàyyi xel ne yooyu dafa am ñaari xaaj yu bokkul am na loo xam ne boo ko jëfandikoo mu jóg fa comme lu ñuy lekk wala lu ñuy naan am loo xam ne mën nga caa jëfandiku bàyyi ko fa mu melaat na meloon lu mel noonu en ñu bokk nekk ci biir daara rawatina diggante sëriñub daara ba ak ndongo ya lu mel noonu bokk na ci nga xam ne dees na ci def ay yombal misaal moom yi mu joxe euh, leer na ci lool mooy ak paan boo xam ne xëy na bokki xale bi dañ ko ko fee indil ngir mu di ci fóot sëriñ bi wala soxna am ca soxla fóot ci ay yére lu mel noonu moom ginnaaw sàmm nañ ko ba yàquñu ko lu mel noonu dara nekku ci ah, su fekkee nag loo xam ne suñ ko jëfandikoo mu jóg fa la moom day laaj ndigalul boroom su fekkee ne mag la moo xam ne dem na ba tamyiz maanaam xàmmee su ba xam lu mu bëgg ak lu mu bëggul te kenn notu ko ba sañu ta bañ waaye sañ naa bañ ba noppi d'accord su boobaa même la ngay jëfandikoo su dee def fay jóg sax day daal di dagan su boobaa waaye faaw nag xale ba xaw a nekk mag te it nekkul koo xam ne dañ koo not ci daara ji ba nga xam ne lu ko sëriñ bi laaj mu jox ko ko wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana kii day laaj nee na dafa yor daara yor fa ay ndongo am na jàkka ju ko jege nag waaye daal su demee julli ji fa su boobaa ndongo yi du am ku leen taxaw du am it ku leen jiite ku leen mën a jiite amul ci seen biir ba noppi it suñ jullee euh, suñuy julli lim leen war a xamal ci julli gi ñu di ko xool di ko roy ci moom ngir dëppale koog julli yenent bi sallallahu alayhi wa sallam su demoon ci jàkk du ko am ak teggin yeeg yu ko nuru muy laajte nag ndax ku mel noonu ci situation boobu mën naa mën na di julleeg ay taalibeem ci daara ji te bañ dem ci jàkk alhamdulilah diggante sëriñ boobu ak dongo yi ak julli ji ci jàkka ja wala jullee ci musalla daara ji dañuy xool rek lan la ci masla gën a gën a note su fekkee xale yi xaw nañoo takku lool te yoon wi xaw a doon yoon wu doonte jege na sax waaye ay ëpp la boo xam ne ay oto yi daw ci télé bi day bari lool ci yoon wi ñu war koo jéggi wala yu mel noonu tam ragal ne gone yi suñ jógee mën nañoo saawaan wala dara mën na leen a gaañ kooku bokk na ci masale yi notal mu jullee ca jullikaay daara ja ba tey su fekkee ne suñ demee ci biir jàkka ja yar bi ñi séentu ci ñoom ak dal ga ñi séentu ci biir jàkka ji nekkagul ci ñoom jaadu na jàngal leen ko bañ xam war may jàkka su ko defee ñu door a tàmbali ji di julli si ci biir jàkka ji waaye ala kulli xaal seenub julli ci jàkka ji moom maslaxa ngi ci ndax da leen di jàngal jullit mbooloo di leen di jàngal teggini jàkka teewul nag su fekkee ni lii mu wax lépp da caa aju itam muy bëgg leen a jàngal ni ñuy jullee eh, di leen ca yaraale ndax ñu xam julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la daan tëddee mu ko daan defee te mel na ne jàkka ja lu mel noonu antuwu fa su boobaa looloo day daal di nekk beneen murajjih muy luy notal eh, jullee googi muy jullee yu ñoom ci daara ji ala kulli xaal moom mag la ab jàngalekat la na comparé diggante lii ak lële dana daal xam gan wet moo ci ëpp maslaha su ko defee mu wéyal loolu te wattu la wéyal ci seen xel nag ñàkkal solo jullig mbooloo fuñ toll fu ne nañ xam ne jullig mbooloo ca jàkka ja moo gën ku ci dem ba man ko ku nekk loolu moo gën ci yow wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana juma tokoso di wootee kër bonji nee lan mooy àttee koo xam ne dafa gént ci bëccëgu weeru koor am lu génn ca moom alhamdulillah ki gént ci bëccëgu weeru koor fekk mu ngi ci kooram kooku dara waru day continuer kooram euh, du fay bis du def dara naam ahsanallahu ilaykum cheikhana kii day laaj nee na euh, li ñu daal mooy imaam suy jugee ci rukoo danaan sami allahu liman xamida nee mamuum ya wax rabbana walaka alhamd waaye nee na dafa liiral benn boroom xam-xam wax ne loolu daal njuumte la ma'muum ci ginnaaw imaam ci boppam day wax sami allahu liman xamidah muy loo xam ne daal lu bees la ci moom mu ko doon leerlu ci fataawa ndax noonu la tëddee wala déet alhamdulilah li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te xadis baa ngi ci buxaari ak muslim mooy su imaam ne sami allahu liman am na beneen riwaaya boo xam ne allahumma rabbana laka alhamd am na beneen boo xam ne rabbana walaka alhamd kon ñetti waxin la allahumma rabbana laka alhamd am na itam rabbana laka alhamd rek am na rabbana walaka alhamd ñett yi lu ci maamum wax loola mooy lañ ko sant waaye sami allahu liman xamida nag kenn santu ko ko moom kon boroom xam-xam boobu bi mu dégg muy wax ne eh, imaam di wax sami allahu liman xamida njuumte la boroom xam-xam boobu li mu wax mooy njuumte waaye imaam day wax sami allahu liman xamida ma'muum mooy wax la ca des bu dul imaam doon kenn kuy julli it sami allahu liman xamida lay wax donte nag dagan na comme ci yeneen riwaaya yi muy ci boppam bu ne sami allahu liman xamida dagan na mu ne rabbana wa laka alhamd wax ko ca suuf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko def waaye maamum daal mënuta wax moom sami allahu liman xamida xanaa mu juum wax ko waaye wax ko te tey ko moom déedéet naam athaabakum allahu cheikhana kii nee na dafa doon woor woorub dafa ne woon sama borom soo ma jàppalee ci nangam dinaa la wooral nee na muy woor nag tombeeg ñu am li nga xam ne mooy EPS eh, e muy tàggat yaram ci école yi nee na nag ñu waroon a daw lu sori loola jural ko mu dog muy laajte waaye nag nee na fay na ko nee na fay na ko muy laaj nag ndax loola mu defoon noonu la walla da cay am bàkkaar wala déet alhamdulilah ki woor day am warteef bu muy def ci liggéeyam wala bu aju ci njàngam loola du tax rek mu jékki-jékki dog waaye day dugg ca loola boole ko kooram su demee ba yëg ni moom mi mënatul a continuer kooram mu dog su ko defee bu jàllee mu fay wa ala alladina yutiqunahu fidyatu taam miskin ñi nga xam ni ne attanuñ ko ñooñe ñooy fay waaye nag yow mi nga xam ne dangaa ne ci liggéey wala dara bul ne man damay bàyyi koor gi ndax liggéey bi waaye na ngay def mooy saaboo boo bu nekk na nga dugg ci sa koor nekk ci sa liggéey su dee yëg nga kattanu mën a woor ba sa bis àgg alhamdulilah soo àggee foo xam ne nag laatikaaf nga bu mën a too jàll say ba nga dog sa koor bu loola jàllee nga fay ko kon mu ngoog noonu rek la na Eh, bori ah, toog na weeru koor lëmb goo xam ne wooru ko wala sax ne na mat na ñaar sax te weeru koor a ngi nii jublu si na te ba léegi mënagul a fay ndax day da doon nàmpal ah muy laaj nag nu muy def alhamdulilah ki yore bori koor yu mu wóorut lu mu bari bari moo xam mat na yaari weer wala mat na yat na xam ne ku war gaa nga ci aw loosam maanaam bor ba mi ngi ci aw loosam moo tax ku yor bor ci aw weer gannaaw bi fukki weer ak benn nekk ci sa kanam jéemale góorgóorlu loo ci mën a fay nga fay ko loo ci mën a fay nga fay ko ci su demee ba bari ci aw loosam it nag day da koy war rek mu di ko fay ndànk naa ko ba ba muy mat su ma ne continuer ko benn yoon mu jeex it mu def ko rek su demee nag ba mu wóor ko ne moom dafa lot mënatut a woor su boobaa mu lele wala munta woor lépp waaye mën naa woor lenn li mu woor lam mën a woor lam munta woor mu lele ko loolu rek mooy taxawaay ba wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana kii day laaj nee day faral di dégg am ñuy naan ah tàngoor bi de su continuer nii ci biir koor gi man de dootuma woor ngay dégg daal ñu koy wax ci workat yi muy laajte nag wax jooju ndax euh, ju waxu la wala déet alhamdulilah waxi naan bu tàngee duma woor de loolu wax ju waxuwut la ëpp naa def nag moom waaye wax gi rek waxuwut jullit bi li ko yàlla sant lu mu metti metti da ciy góorgóorlu def ko ndax santaane yi dafa war a ànd ak war war dafa xaw a dafa war a xaw a metti dafa war a am luñ ci yëg ci xeetu metit su ko defee tuyaaba ja day yokk engagement ba day gën a yokku pay ga yokk jullit bi su xamee koor li ci nekk ci tuyaaba ak li leen yàlla jagleel ñoom woy woor yi nga xam ne ëllëg bunt lañ leen wutal spécial ci àjjana boo xam ne bu doon ci àdduna dañ naan buntu VIP la nga xam ne ña fay jaar moom ñu tànn lañ segg leen bu waxtu wa jote ba nit ñi di sonn ka kuus-kuus yi lu ne ñu di ca dugg ñu ne ana waa ana woorkat yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne ubbil leen bunt ba li ñuy wax rayaan ñu ubbi na leen jàll leen ñi ca des nekk ñu lijjanti seen mbir ñoom ñu jàll ku xamoon loola day ak bis boobee nam tàngeek la fa nekk ci ay jafe-jafe jàpp naa ne ba ñu wàccee woon jant bi sax ba mu nekk ci sa biirum néeg da woor ba keroog ngay tële rek waaye du la tax du tax mukk nga ne bu tàngee du ma woor loolu moom du waxi jullit sax kenn du ko wax boo fàttalikoo ne ñi nga xam ne ñooy say royukaay muy saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yow mu badr buñ la nettalee bis booba la fa nekk aw tàngoor ànd ko xeex jaamaarloo ki noon yor ay xeej ay jaasi war ay fas ay gëléem di jaamaarloo di reyante nga gis deret ju xonq ji di sotti ko te ñoom ñi yendu ci koor loolu de jullit bi bu ko seetloo dana rusa yëkkati gémmiñam di wax naan bu tàngee duma woor naam ahsanallahu ilaykum cheikhana kii day laaj nee na imaam suñ koy fal ndax mën nañ koo fal ci ab diir ñu ne daal kii fal nañ ko imaam diirub nangami at su jeexee mu wàcc mu ne ndax loola dagan na alhamdulillah nun de lépp loo xam ne dafa aju ci doxinu lislaam aku tëriinam lañ ca xam rekk mooy na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon saxaaba yi doon dunde noona jàngu na ci siiratu seeni doxalin ñu mas am menn misaal moo xam ne dañoo fal imaam ne dañ koy fal ab diir bu jàllee mu wàcc ñu fal keneen loolu xamuñu ko waxuma imaam yi jàkk sax waaye imaam ji nga xam ne moo jiite jullit yi di amirul muminin amuñu woon tànn ko wala ñu fal ko di ko wutal ab gàpp li feeg mi ngi koy man daal dañ koy bàyyi mu nekk di jiite saa boo xamee ne dem na nag ba tële wala bu nanguwul ne tële na it waaye nit ñi xam nañ ne fi mu ne tële na su boobaa ñu ko faloon daal di koy wàcce door fàtte keneen waaye kaay toog nekk imaamu jàkka ji daal ñaari at wala ñetti at wala juróomi at su jàllee ñu seet jeneen imaam déedéet loolu moom sharia tërewut noona naam xafidakumul baari cheikhana ci tontu yu leer yooyu kii lay laaj nee na koo xam ne dafay wane boppam ci ni ko waxe di bëgg ñu jiital ko ci imaama di mu jaral ko sax muy wane lim man ci njàng ak lim man ci nangam ak nangam mu ne ndax kooka ku mat jiital la walla déet alhamdulilah feeñal sa bopp ci xeeti njàngi alquran wala yu nuroog yooya day dafa ñaari xaaj am na xaaj boo xam ne bu ñu la buñu ñu bañ la ci lislaam boo xam ne it ak mujjam baaxut muy mën ngaa jàng alquran neex nga baat Eh, di ko di wonewu kenn laaju la ko waaye yow yaa ko bëgg a feeñal bëgg a feeñal sa bopp ngir bëgg martaba bëgg ak pal bëgg ndomb ak tànk bëgg am fu la nit ñi teg xam ne loolu rek moo tax ngay neexal sa baat ak di ko di jàng kooku musiba mu réeréy la te it luñ ŋàññi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu tuddee nga xam ne ëllëg dañ leen di àtte ne ñi ci jëkk a dugg sawara boole na ci jàngkatu alxuraan boo xam ne da doon neexal baatam ëllëg buñ koy àtte mu ne man kat dama doon jàng alxuraan ngir sama boroom yàlla rek a taxoon ma di ko def ñu ne ko waxoo dëgg danga doon jàng alxuraan ngir nit ñi ne ak mën a jàng te loola waxoon nañ ko kon la nga ci jublu amoon nga ko ci ba mu leen limee ba àggal daf ne ñooñu ñëpp dañ leen di diri tàbbaleen sawara wala yaasu billah kon loolu di su ko def beneen bi ci des nag mooy wone goo xam ne dañ la koo laaj lu mel ne ay imaam ngi yoo xam ne soxla nañ cee tànn kenn su boobaa ñu taxawal ak concours tàgg xool leen ba xam kan moo ci dàq jàng alquran na ko yonente ba sallallahu alayhi wa sallam waxe ne yawmu a aqra'uhum li kitaabillah kay jiite nit ñi mooy këleen dàq jàng alquran su fekkee ñoo yem ci alquran ñu xool ka gën a xam sunna te di ko jëfe noonu lañ leen di toppe kon gaaral gi ak tànn gi ak laaj gi ak tontu gi su boobaa day daal di nekk lu ñu santaane su wonee boppam noonu ak wane am njàngam wane baatam bu neex su boobaa kenn du ko ŋàññi ndax day wone loo xam ne est-ce que ko laaj naam barakallahu fiikum cheikhana Moustapha Badji di woote kundam fii ci Kaolack nee na weeru koor am na ñoo xam ne sharia moo leen jox ngànt ba duñu woor mu ne nag am na ñoo xam ne dañuy jaay ndékki ci bëccëgu weeru koor te amaana du ñu am ngànt dong la ñuy jaay amaana ñu ñuy jaay sax ñoo xam ñoo xam ne amuñu ngànt kon ñooña lañuy def ndax lu sharia di nangu la am déet muy ñay jaay ndékki ba tax ñaa nga xam ne dañoo ñàkk a woor te tey ko di mën a sukkandiku ci ñoom ngir lekk mu ne ñooñu la def ndax lislaam nangu na ko wala déet alhamdulilah ki nga xam ne day jaay ak lekk ci bëccëgu weeru koor moo xam ndékki la moo xam ab añ la su fekkee ne la mu ci jublu day mooy ñi am ngànt ci koor ñi am fuñ lekke loolu moom dara du ca nekk mën naa am musaafir boo xam ne daa tukki wàcc ci garage garage bi soxlaa lekk gis kuy jaay bu jënd lekk loolu kenn du ko ci yedd di su ci yedd itam kuy jaay jigéen joo xam ne dafa dog kooram waxtu lekk jot mu gis kuy jaay lekk mu jënd lekk kenn du ko ci yedd boo ko toppee noonu rek la deme mu des nag ne lu mel noonu boo nekkee ci biir société boo xam ne ay jullit dafa nekk nga dem bay jaay lu mel noonu bëccëg da koy jënd di ko jënd dafa jaadu mu demee noo xam ne lu ñuy suturaal la maanaam nekkul lu ñuy fësal taxaw ci mbedd ne fàng ñu seen da ngay lekk ci bëccëgu ramadan loolu dafa ñaaw ci ab gis-gis te ñu bari mën nañoo jàpp ne kii ku sàggan la waaye loolu rek moo ko tee woor fekk amaana ngànt moo ko tee woor togguñu ko it moom mi nga xam ne day togg di jaay ci bëccëg bi ne ku ñëw ku nekk dalay laaj ndax woor war na la wala waru la waaye day jàpp rek ne bu dee jullit moom koor da ko warut moo tax mu sañ lekk loolu doy na ci sëkk waaye nag charia néew ko par force nga enquête enquête nit ki door koo jaay moom kay dañ koy bàyyeeg boroomam ginnaaw ñëw na di laaj lu lekk ci ki koy jaay na ko jaay rek te bàyyi ko mu boroomam su dee daa am ngànt alhamdulilah su amul ngànt dana dajeeg boroomam su ko wóoree nag ne kii ku amul ngànt la kooku jaadu na mu waar ko ne ko lii ngay def jaaduwut te daganut bu mënee dem ba àgg ci bañ koo jaay sax jar na ko nag su boobaa wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana kii de laaj nee na ki nga xam ne dafa war a lele lele mooy farataam ci weeru koor ñaata la war a génne bis bu nekk ci CFA mu ne it su ko génnee ndax mën na koo boole dajale ko rek fanweeri fan yi jox ko benn miskin mbaa ñaari miskin séddale leen ko alhamdulilah ki war a lele lim war a joxe mooy loo xam ne mën naa dundal nit ci bis kon la koy gën a noppal rek ngir ñu mën a dëppoo la charia santaane mooy na laaj boroom restaurant yu digg doomu yi waxuma restaurant bu jéggi dayo boo xam ne ndékki la rek day mat quinze mille franc waxuma loola waxuma it restaurant yu yama yaay yamamaay yoo xam ne boo joxee ñaar fukki dërëm jox la loo lekk waaye ca diggante ba nag yooyu ngay laaj ndékki ak añ num toll ndax reer moom amut ci koor boo xamee ndékki la ak añ ba na mu toll nga xayma loola ci seefa loola rek ngay génne loolu ngay def itaam boo ko defee ba xam ko it bu nga jox ko kenn nit koo xam ne faqiir la wala miskin bu la neexee it nga séddale ko fanweeri nit naam ataabakum allahu cheikhana kii laaj nee na dañ ko tuddee benn conférence boo xam ne ay ndaw yu xër ci lislaam di ca góorgóorlu ñoom ñoo ko bëgg taxawal ñu tuddee ko ko nag mais daal moom lañ ko tuddee xëy na ci weneen waxin daal dañ naan moom lañ pare ne daal teralee ko bis bi muy laaj ndax moom sañ naa nangu lu mel noonu wala déet alhamdulilah ak sañ nangoom ak ñàkk sañ a nangoom day mu ngi jëm rek ci li ñuy def lim doon bu fekkee lu baax la ñuy def loo xam ne conférence bi woote ci alquran ak sunna woote ci lu baax woote ci njàngum alquran woote ci eh, aw yiw ñu cërale ko ko wane leen lii cërub diw sangam lañ ko def ngir ab taxawaayam ci diine ji ngir ab taxawaayam ci liggéeyub lislaam bi su boobaa kooku yëkkati darajay kooka la Euh, te it soññee ca ndax am ñeneen ñu mel ne moom ñu góorgóorlu bu ëllëgee ñoom it ci liggéeyub lislaam bi lu mel noonu dara du ca nekk insha allah wallahu taala alam jazakumullahu ba Canada dafa am xeetu jëflante goo xam ne ñu bari ci ñoom dañoo bëgg a xam luy àtteem Eh, soo ko xooloon xool nag day mel ni day tolloog almurabaxatu lil amiri bi shira mooy da ngay bëgg kër amoo loo ko jëndee banque bi ñëw jënd ko ci turam su ko jindee ci turam ba noppi fab ko teg ko ci sa loxo su ko defee nga di ko ko fay ngeen ca la ngeen dëppoo mu ne nag banque bi dana ca teg intérêt intérêt boobu léeg-léeg day nekk intérêt bu fixe da ngay da ngay xam ne fii ak nangam saa yoo fayee nangam nga ci teg mu ne léeg-léeg du fixe am na ci ñoo xam ne dañ naan la juróomi at yi nii lay toll waaye su ko weesoo dafa am luñ cay teg boo xam ne fixe muy laajte jëflante gi ci boppam ndax dagan na su daganee it ban ci ñaari anamam yi ñoo dagan alhamdulilah ki nga xam ne dafa soxla kër banque jënd kër googee def ko ci turam wala nit jënd ko def ko ci turam nit ak banque ñoo yam rek ku ci ne mën ngaa def lu xaraam mën a def lu dagan su ko defee opération bi rek la ñuy xool ndax dagan na am déet ñu bari dañoo yaakaar ne buñ tuddee banque rek lépp xaraam na waaye déedéet banque yi am na yu ñuy def yoo xam ne opération yu dëppook charia la jubluwuñ ko ci nag yëguñu ko it boo demee waaye lu am la su fekkee da ko jënd ba moom ko wëlbatiku lebal la ko teg ca dara loo xam ne da nga ko war a teg ca lam ko jënde woon loolu kenn du ko tudde intérêt duñ ko tudde riba waaye bénéfice la kooku bénéfice la jaay ndax njaay ak la wa axalla allahu albaya wa xarama riba su fekkee ne daf koo jënde moom bank bi fukki million fay boroom daal di jël kayit yi téye ko nga ñëw ñi lebal la ko nela la danga koy fay teg ci nangam nga boo ko fayee daal fii juróomi at yi moom fukki million yooyu dana mujj nekk fukki million ak benn su boobaa loolu dagan la kii daa jënd jaayaat la taux bi nag dafa war a sax maanaam lañuy wax ne moom moom ngay fay loola rek la war a doon buñ ne la daal booy fay ab million moo ciy tegu ci juróomi at yi dara warta soppi ci diggante bi bala nga cay teg benn million noonu la tëdd ci sale waaye bu fekkee ne taux bi ci boppam day soppi ko bu ñu la million lu ba léegi la un million bi kat cent mille franc tegu na ci na ci daal di dugg ci riba wallahu taala alam xafidakumul Euh, bëgg na nga laay biir ko ndax ñàkkul su la déggee dana euh, jëriñu ci say kàddu nee na day koo xam ne dafa am jafe-jafe ak boroom këram ba tax mu génn këram kër boroom këram nee na ñëw ci moom moom mi nga xam ne mooy jottali laaj bi ah su bëggee tukki mbaa mu génn moom da koy laay biir ne ko ah dëgg la day danga am jafe-jafe ak sa boroom kër day waaye nag teqale koogu leen kon nag sooy génn de ko tàggu waaye moom day lànk nee na nag euh, mu bëggoon ay laay biir yu jëm ci moom jëm ci masala moom yi alhamdulilah euh, soxna soos yi nga xam ne su fekkee dégg naa laaj bi dafa fay maanaam jóge na kër boroom këram ci lu dul ndigalam dem dëkk ci geneenu kër léeg-léeg mu di fa jóge nag di tukki mbokk mi li laaj nii maanaam ku koy laabiire moom soxna si danga koy wax ne ku mu dellu ca këram ndax jëm mi jóge ca këram ga dikk bàyyi fa kër boroom këram dikk dëkk ci geneenu kër loolu moo gën a rëy la ca bànqaasu muy li cay jóge ginnaaw toggoo gi mu toog foofu ci la amul ndigal kon yeneen yu sew sewaan yi ci tegu muy jóg di tukki di dem ak a dellusiwaat loola moom jëru koo géttan di ko ca sonal ku koy laay biir kay da koy wax mu dellu ci këram te bàyyi e, noonu yi mu abandonné kër jëkk moom nekk feneen waaye ka xas bàyyi kër jëkkëram ba nekk ci geneenu kër loola moo gën a rëy leneen la cay jógewaat muy ay tukkeeg ay génn nag dem ak dellusiwaat ak yu mel noonu yooyu su ko koo tere ndax ginnaaw mënoo koo tere lu jëkk la nga xam loolu ca la bànqaasu kon lii itam mënees ko tottale kon daal la leen di sant mooy su fekkee ne nekkin wa ci boppam lu mën a nekk la nañ leen laaye biir ñoom ñu waxtaan ak soxna si mu delluwaat këram toog nekk cib sëyam su demee ba nga xamee ne it da sëy ba nag daa mënatula nekk na def ay pexe ngir génn ci sëy boobee waaye sëyu bàyyiwoo moom euh, loolu lu la ci fekk lu nekk yaraange lay doon naam alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi daa mel ni li ñu digaale woon ak yéen ci ay laaj mat na ba tegal na sax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñ borom subhanahu wa mu jotale ñu ci koor gi lépp luñ ci jaamu it yàlla nañ ko suñ borom nangul yàlla na doon farug bàkkaar ak eh, gore ci sawara ak yëkkatiku ay darajaat yàlla kàttanal ñu bañ woor ko ci jàmm Euh, lépp lu ci suñ borom subhanahu wa taala ñu màng ko comme di kon di soññaat mbokk yi rek ci gën a bàyyi xel laaj yi su gënee mën a jëm ci koor daal ci waxtu yi dana baax dana gën a euh, rafetal liggéey bi waaye dana gën a dundal daara ji tamit euh, di sant Cheikh Al ci taxawaayam ci pas-pasam ci liggéey bi wax dëgg yàlla jamono ju nekk rek mu ngi ci di ci def lam man dëgg fa yàlla ñu war koo ñaanal bu baax a baax a baax lum xat xat xat xat dana fexe ba jotaay bi moom du romb du ko raw léeg-léeg sax suñ leen doon wax ni mu koy taxawale eh, di ngeen yéemu waaye ñu ngi koy ñaanal rek suñu boroom sax wa taala mu dal ko tawfiq ndax ki neex a ñaanal moom mooy kiy jëflanteeg suñ borom kon yàlla yàlla guddal fanam yokk wéram yàggal taxawaayam euh, di sàkku ci mbokk yi rek ngeen dolli ñu ñaan ñaanal rawatina wér yàlla dolli ñu wér allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa alihi wa sallim kon cheikh naa kàddu gu mujj gaa ngoog ñu dig mbokk yi dajee incha allahu jotaay bii di ñëw ajjuma euh, ji di ñëw ci seen beneen jotaayu fatawa alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi sant sunu tabaraka wa taala di ko ñaan mu defal ñu tawfiq ak ndimbal ak barke ak wér yaram ba nu àgg ci weer wa ak jàmm may nu kattan akuk man tal koo xam ne danañ ko mën a jooxe ni ko sunu borom tabaraka wa taala santaane di ñaanal ñëpp di leen jox dig ni ko Cheikh Abdullah waxe kon ba ajuma jee di ñëw di ñaan borom bi tabaraka wa taala fekke ko ak jàmm wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh